kenn ku si nekk suñu na jàpp ne échantillon nga produit buy mënti jënd doo xool yëpp da xool benn rek bu la doyee nga kon kenn ku si nekk suñu na jàpp ne échantillon jullit nga kenn ku si nekk suñu na jàpp ne échantillon laayeen la kenn ku si nekk si ñun na jàpp ne échantillon murit nga échantillon tiijaan nga échantillon xaal nga maanaam si yow la ñuy basé wu pour wax lan mooy xaalis kon kenn ku si nekk si ñun war na mën a siggil kay kilifaam te nag la siy jiitu mooy yeneen bi alayhi salaatu wasalaam bari na ñuy jëm islam bari na ñuy jëm suñuy kilifa waaye boo xoolee jamuñu suñuy kilifa directement ñun ñii woote woon ay taalibe si ñun la ñuy jaat pour jëm suñuy kilifa te nag yenn doxali ni fekk ñu ngi ci rek dina ñu yàgg a jëm suñu tarixa yooyu